jama jàmm ci UK Europe US Canada Switzerland ak adina wangal kep ak suñu kay xaliss bu maga bi nga xamne ne dafa wóor gaaw te noppale fi ci bir Gambia Supersonic Money Transfer ñu ci ñett fuk ak ci bir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën si jottum xaliss bi nga xamne kenn duko lam lamé si Google Play Store wala App Store ngir muna a bind si suñ app bi di Supersonics Money Transfer app Dan ngeen mun a bànneexu suñ money transfer services yi I'm Big regla ak Supersonics. Naririt Wow, wow, wow, wow, waaw salaamaaleykum Gambia na di leen ne déwénati fekkee déwén ah, dama ne nag ah, dëkk bu nekk rek ak num koo defee waaye tele bu Wilson bu nekk ak num koy defee dama ne tele yi bari nañ si biir Gambia waaye it nduroowun te bokkuñu wax naa leen ñii ñuy naaw ah, ñii di crawl ñii nag di raam ñun nag ni ñuy def dañuy jéggi kon nag nañ jéggi gaal bi romba fu ñu war a romba Gambian Talents TV yegg si na si saawa 2021 rootu ndéwénal tey du yomba te leen am liste bo xam am tuba fa ma macha allah tey nag dañ seet si politiciens yi seti seeti businessman den dañoo seti jigen yi nga xam dañ contribute lu bari si dëkk bi Gambia dafa neex Gambia réewi teranga wax len, leen Gambian Talents TV ñun bëgguñ kenn mu boren bëgguñ kenn mu tok ne télé ana gis ngeen jongoma yi ma andal hola len ma xale yi nu ñu sansee xoolal leen ma xale yi nu ñu riisee yéen wéef leen gaay ah kon nak sen harit sen Fatou Samba ñëw ci road to 2021 bi ah, du yomba ah, dina neex ah, dina rafet si wa nuyu na la si yaay suma co-host tey fay na la fat sama way bala may wa tamay bëgg nga introduce kula santé ci ko bi suuf parce que yaangi tak ni jant waaw si wa ndaysan man nak may borom mag bu baax man suma mag mo dik Amérique di jatu si soho banna dik Pennsylvania am jëkkëri malien bayu dara muy ñaaw ah gorom dik ay Mali jëkkëram nek Amerika di si soho banna man moma solal si kaw ba si suuf su ma daal tey Michael Kors la damay xajaan parce que man lu ma sol ba si suuf ay designer la pare ma sol nag sama jaalu or xanaa piiruma xanaa piiruma xanaa piir xanaa piiruma waaw piirati kañ waaw loolu si saawa nag Ajis Beauty Parlour bu ñaawut bi nga xam ne man moo may defaloo suma kanam saa su ne moo jaar si kanam bu rafet bi waaye yëpp nag ak Gambian Talents TV yow sa sanse nice na foo sanse def tuur nu war a ak yow xam nga man damaa ñuul dam ay ñaar teppit dali bi rey gaam rey dëkk rey fu ne tey daal ku mer bokkoo dama ne dama bëgg ngeen kontaan. na ma rey yow ci bokkul sa biir yow ci bokkul sa biir yow ci bokkul sa biir far sàmm neexu leenam far sàmm neexu leenam xoolal musóor yomb na waaye bii wa dikkal ma naan yow sa nja yomb na waaye wa defee waxal yow te la yomb na waaye bii wa defee yaa ngi may gaan sama xol bi allah macha allah dama ne ñii ñoo bugg seeni yaay tuddee ko seen boppa ah, kon ki nga xam nak moy mooy suma broda di paap Anda papa Anda ak ki nga xam ne nag mooy addu booy ah, loolu dina rafet ah bu ko defé nak ñu and ak suñ jola bu rafet bi moom mu lak jola rek ah sha allah. ok abarka ah, ka kamɓe amollo ya usenu atlanya wol joytate sin ya usenu dabu mo kane gambien talan salut Gambian Talents TV jiisen wona so woni ka bajak on mbokkay comme no waaw Jeff neysan ñu ne feccum riir su nexe ndey jaa tee si mbaga ah, wallahi supersonic money transfer Ken du yeen ah, yeena a baax suma broda almamo ah, gis neen liggey bi ngay def ci Gambia fi ku fi umbi money transfer wallahi sa money transfer war nga ko setat parce que supersonic rey na supersonic gëgëza bum supersonic moo gina visible supersonic moo gina yomba supersonic moom ngay dem te do fa taxaw di rang benn problème nag supersonic neexu leenam wa wallahi suba soo nigi neexul yéenam suba soo nigi neexul yéenam bëggee yónnee ñëwal suba toni boo bëggee yónnee ñëwal suba toni eh waxuñu ki dëkk ci réew ki defar réew mi la ñu wax ba ko suba toni tey ma way la wane la way la maa ko man waaw nee leen doomi mi la ndeysaan ne ko waa jërëjëf ah, balaa ñuy dugg nag si suñ gan ah, dinañ jaajëfal ki nga xam ne mooy jaabi fandema di seeni jaabi ah, jaabi mi nga xam ne wax dëgg neex yàlla suma broda boppa bi nga xam ne dafa jàpp si yoon bi kontaan si jaabi brodas moom ak brodam di alaaji jaabi fandema wéyal leen ma ko jaabi neexu leenam fandema tey ma lay bégal jaabi fandema ma tey ma xam ngeen ku may wayal jafande de wayal dab woo jàmbaar woo bédaba doy na woo ku nayam gërëm eh, bés bi nag ko bés bi ki nga xam ne tamit mooy Maam Jaara Holiday Inn ah, muy Pa Malick ah, mbayeen boobu nag lekk rek la mun waaye Pa Malick si bés bi ne xuliyanam mbay jeeri ngoone maalo samba iyey kuli senge mi ci ndaat day ba Malick neex na leenam e ana ñu ko bëgg waa Gambia ñoom ñoo ko bëgg e ma ñëw waaw tey nag dañoo seeti ku jara seeti ki nga xam ne wax dëgg neex yàlla duma ko tudda fii dama dugga ba si biir këram ma tudda ko ma ay ñi nga xam ne yi ñuy seetaan si YouTube ba Facebook bi Gambian Talents TV tey dañuy bégee ku ñuy seeti ku ñuy seeti. Papa Laya moom la ñuy seet. e fekkel dewen ci at wi. bay waaw macha allah Gambia dama ne kii mooy bàyyi politicien yi ah, kii nag moo nekk ki nga xam ne ah, dama koy wax ku fi toog tey ah, nekk Gambian bu nga dugg si politique foog nga ñëw seet si suñu baay ji baay joo xam ne dama koy wax dafa am yar baay joo xam ne dafa baax baay joo xam ne ñun wax neen ko ñun ganaari kenn nenut ñu waaye dañ ko kool wax ko ne leen laa ñëw seet si mu ne welcome lii leen bugg si suñ dëkk bi na politicien yi wàcca xam ne ñoom ak ñiti la du karta moo leen boolee ñiti ñiti ñoo leen boolee ñiti waaye lawyer Ousainou Darboe we are very proud of you lii leen bugg si Gambia sama yow laa koy jox nga jox ko leya sama édicat bi yow laa koy jox nga jox ko leya leya Darboe waxuñu ki dëkk ci dëkk bi ki defar dëkk bi la wax kenn demul bala gaañi yaa leen man e, yaay seen mbaay xolal yaa ci njëkk tey des na la wayal ba mu neex la kenn du ko waaw bilaay yaa bëgg Gambia yaa bëgg Gambia ñun xam nañ lépp kenn demul bala eh nit ku baax nan la war a ku baax nan la war président nan la war mel ay président nan la war a mel président nan la UDP UDP UDP UDP UDP UDP UDP UDP UDP UDP yow yaa ko yore yaa ko tee Bala Yada yaay sunu yaay sunu yaay sunu baay nday la yow séeri nee leen séeri nday muum e nee leen séeri nday muum e nee leen séeri nday muum e defar Laya Dabo UDP Ousainou Dabo ko waaw walaay ñu kenn bañ ko ñoo ngi nii e ñoo ngi nii e ñoo ngi nii e ñoo ngi nii ñoo ngi nii ñoo ngi nii e ñoo ngi nii ñee aawo e aawo aawo baa ngi nii waay masa masa jërëjëf euh, wax dëgg neex yàlla euh, Gambia wax naa leen ko euh, dañuy dox dox bi seet seet bi seet si ki nga xam ne nag moo jara seet si kooku di lawyer Ousainou Darboe mi nga xam ne nag moo nekkoon suñu vice président fii si biir dëkk bi mu nekk koo xam ne nag UDP parti bi nga xam ne ñu bari xam nañ ko suñ ne yëloo yéen ñu bari yéen a ñu ko gën a xam parti bu yàgg si dëkk bi waaye balaa ñuy jàkkaarloo mi ne mango balay neex dayelo man ma and ak ñu am xoram kon nak dañu def ni rek a ah, seeti kilifa bi nga xamne nak mom mo nekk fii si biir bi ñu waxtaan ak mom laata ñuy wax ak sun gan salaamaaleykum wa salaam salam ah, nen la nak ci keer bi sa su ñu la gis ci sun boori ji Keba ke Kurubali lo ñu mën wasi wax dabo ak Ousseynou moy kan ci yow ah Ousseynou premier, Ousseynou moy suma mag bi si family bi mu jege fa Ousseyni suma doomi nijaay la mu jógee fa Ousseyni mu nekk suma pati liida mu jógee fa Ousseyni mu na nekk suma président in future lu ñu amee ñu ngi ko xaar so Ousseyni lu bari la nekk si man nga amee eh, Ousseyni nit la soo ko soo ko jegeen nga xamee Ousseyni nit la nga amee eh, dafa emal yëpp si aduna Ousainou gisut kii dafa jànga kii jàngut kii dafa am kii amut kii kilifa kii xale la Ousainou dafa human bi la respect nit la buga nit la respect bala nga xam loolu nga jëkkeen ci Ousainou yu nga amee jëkkeen ci Ousainou ñu ngi koo sore ñu ngi ko waa lu ñaaw xamuñ ko mm-hmm. loolu tax ñu ngi waa ñu ñaaw o leneen tam ñu ngi ko waa ñu ñaaw xëy na place bi mu nekka loolu lañ ko buga am nga nit yi soo ko gisee mu ngi nekk place yow bugga nga ko amuloo ko foo nga jëmma a try nga di ko yaxa foog nga jéem a try mooy daal da ko e xam nga lu ñu wax si si si si wolof waaye mooy si da ngaa jëloo si because fu mu nekk ni soo gisee useenu nekkut président fu mu nekk nii waaye ku jógee rek ku nga amee dana wax daal Ousseynou moo def lii lii Ousseynou moo def lii Ousseynou toogul si kaw xaalis kenn Ousseynou jëlu si kaw xaalis kenn Ousainou toogul si kaw taxpayers money Ousainou xale eh, sam la dunda ba mu nekk si looya yëpp xam nañ ko adduna yëpp xam nañ Ousainou lawyer la adu du Gambia fii rek du eh, eh, West Africa rek waaye adduna yëpp la parce que Ousainou liggéey na fu nekk wuseenu nekk na fii nga amee dimbal na nit yi Ousainou polo am na nit yi nga amee politique dañ dugg si politique nit yi xam nañ waaye Ousseynou balaa mu dugg si politique nit yi xam nañ ko. wéyal leen ma Ousseynou si politique dafa yàgg du tey. waxtaan ma jërëjëf bu ko defee damay dem ak soosee rek waxtaan ak ñoom si soosee am fànnee kontoŋ. Eh, mbona ngee joo. Ah, bii naata ne tari jàng ah, looya useenu daabu la kordaato ibam la la jàng. naata sal kondoon di raw la la nko too maale ma alhamdulilah m faamaa ne a baama baaki li m faaki ni nam alhamdulilah eh, walayatin na mboka faama jàng bi alaa ke mbenta ñim feeñen kara koo feejanto kana konton sawloola anin dimbaal bee uh, amonte kotol me ya lan ko aman silande ayan ha nyin danyale birin alhamdulillah uh, ala nyim pala so karfama mbele tamadi ina na ta jawatu wati ne je mam men so tabulu oto tabulo kono oto tabulo kono oto o badiya kan kaftanan kana kondon jan ala kan kila kan fo tala samin nyato kadun dimba do bi alfa do bi ka dimba silandi alale dimbal la ta kuku kela ibo ka futa nuwama bara ya nya dinna ama fanci kan dindi ayan tol tol ninna besire kamera ko tol sharati alhamdulillah ala tun wala ala tun wala bakel folo folo be man dal man sadda Allah bul altala su sima ala anin jati kende ya tun ko be ka kun wala kono altala su sima ala anin jati kende ya mbele fere men fananna man sa Allah sa dum bulo kono ala de marodo rasul hormona barkoto usenu nkoto malem komi ngamen fo ama fam wara moti a fanji hani dindi merengu ni ita ni benda dawda aka fanji yela adun jul fulale man sata labulu subhanahu ta'ala ako jul folo folo be santole ako hanama dinga de di na fa wara hadama din kan jul du man ko wala babula ko le saba ay do yandi hadama din kono bar fem fem ya ka ka ya, ya fanji hadama din liye ako julisan don ko a du wala la o dar yo wala ɓe gusñani ɓol ya fanji atala keci kanden a simala ko tilo asi a la fundi la asi a simmol ndi la kadi worom atala dammale ta subhanahu wa taala ni hadama hadamaden waro ci ka doron wo waro bu ka ban jaato ko ko kota dimbala kaw jani len ki kisawama ngali tendu fana ngali jayi alla nantol koto ma ka bunya atondi ka nganyende afando fando ah, alhamdulillah ngali tendu bakele man dandula sotu sotonowal ka har jayi kaari tendu ñin eh, dow ɗo fendi natata ko feŋle wata ñin ɓeeɗo ɓari alhamdulillahi ali gayandi gambiya kono gambiya e bantala ata fana mbal tendo lalla dow ko kendo kan muskunda ke kundambe duwalale ñin palaso ñin fo allahu taala si a yirwali ɓolu kan na tanka masi kuwownono ɓeela rasul hormono barkawto kan tanka jawjeloma ñin ñon jama jama fo allahu taala so de na ni ala fana allahu taala mansolo demaɗo ko la ñinin kar dol wana usta ke no stat khisitet khawtule ala de marok lambe tala dan wala ala ma ala o ke kila hormona barkot na tantu wa salamu alaykum wa rahmatullahi yani ke bula daro se bula yoto fo mole muhammad lamin dabo na kon bok papa bongo yobuma ya dabo ya de kisi de kibi wala kon de far de kibi ya jërëjëf ma ne ko jërëjëf ah, bu ko defee nag dama toog nii rek ah, jàkkaarloo ki nga xam ne ah, mooy soxna si di Awa Boury Kiram mu nekk koo xam ne ku baax moom it comme nun lañ ko waxee rek Gambian Talents TV saa su ne ñun dañuy génn di waxtaan ak askan bi looya Ousseynou Dabo nag dafa nekk politicien boo xam ne ay jabaram dañu bokka ay jabaram dañu dañu dañu ñëwtu géeda loolu nekk loo xam ne lu neex la lu jafe si fi nga xam ne nag mooy dëkk bi Ah, su ko defee rek ñu waxtaan ak ah, suñu yaay ah, madame Dabo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Eh, tur bi. maa ngi tudd Ajamay Ndour Dabo. maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp. di ko njëkkee ci suma jëkkër. di seet de Gambia ne. ma boole moom ren ñeneen fukki at ak juróom-benn. góor gu baax la. góor gu tabe la. te góor gu am yërmande la. bugut njobootam jooy dara. loo ko loo ko laaj rek mu ekkati ko jox la. te yàlla may na ko xam-xam xam-xam mooy yóbbu réew Ousseynou am na LLB from the University of Ottawa uh, University of Lagos mu am LLM from the University of um, Ottawa te nekk na ci lawyer yi njëkk yi nga xam ne ñoo def legal drafting te xam nga legal drafting ku ko def doo eva yaaxa luwaa parce que loolu la jànga Ousseynou nekk na nit ku am yërmande te dafa spend his entire life di dimbale aji néew doole gi comme ni ko Kéba Kurbali waxee sànq Ousseynou ci politique bi ak ci liggéeyam bi moo def as lawyer dimbale na ci ñu bari 1981 coup d'état bi mu amee bañ charge the entire cabinet of Sir Dawda Ousseynou mi moo leen taxaw am na ñoo xam ne fey nañ ko am na ñoo xam ne laajuñ ko bu dee waaye moom liggéeyam bi seetu ci xaalis seetu ci xeet nijaay Yaya Jammeh ñu ngi ko wax James Junkung Jammeh 81 coup d'état dañ ko charge for treason Ousseynou seetu ne kii Joola la seetu ne kii am am dafa néew daf ko jël taxawal taxawal ko te yàlla boo àndee dëgga daf laa jàppale mu win case boobu waa ji free am nañu ko accuse ne tribaliste la Ousseynou du tribaliste. yàlla si loolu sax ah, parce que dégg neen ne moom daal ah, soose rek. Ah, moom daal ah, mbokkaami rek inko inko ñu déggal loolu si moom mu jaaxal ma nag te yow nga nekk ah, olof am ma bëggoon a xam si loolu na yow soose nga Ousseynou ñun ñaari soxna la ko yàlla dénka te kenn ci ñun du soose soo demee ñaari këram yëpp olof laa laakaa ñun olof laa laakaa suñ njaboot gi ñi ko yar doore ko ci père euh, maam père Ndiaye ba ci ñoom yaa Adam Tirin ñëpp ñëpp olof lañ Ousseynou yorawul ci benn loxo soose nekk na nit ku jub te nekk na nit ku am yërmande te maa ngi leen a jox benn exemple. balaañ ko Daha as vice president. dañ ko yónnee mu dem ah, benn trip in fale naka la Addis Ababa. bi ko nguur gi di ebal dañ ko wax ne dafa dem pour juróomi fan. ñu fay ko par diem pour juróomi fan. waaye dafa eega programme bi ñetti fan la am jeex mu ñibsi waaye bi mu ñibsee ñaari fani padiem yi daf ko delloo xaalis si nguur gi ti yeddi si tam bi ba mu ngi yeddi si tam bi soo kii nekk nag nit koo xam ne soo leen ko dénkee réew mi ëllëg alali réew mi fi mu ko war a dugal dina ko fa dugal du ko jël di faj soxlaam du ko jël di faj soxla njabootam bi mbaa di ko jël di di di faj soxla extended family maa ngi leen a sernde loolu ci moom nit ku jub la am te te nit ku fonka luwaa la 1980 soo gisee mu resign from government Sir Dawda ah, boosam at the time daf ko bëggoon a def loolu loo xam ne méngoowut ak luwaa mu bañ ne du ko def sa ëllëg sa mu xëy liggéey mu fekk ñu nangu faali yëpp si loxoom empty table la toog bi mu wàccee mu ne ma maye ma mu ne ma dama resign du a continuer lii waaye saa Dawda mi nga xam ne dafa fonka doomu aadama dafa fonk jox doom aadama gëddaam ba ko déggee daf ko wóolu mu ne ko Ousseynou man yëguma dara lu xew lu ne resign nga dama bëgg nga dellu ci sa place bi man dinaa def suma own investigation Ousseynou woon ko ne ko man góor laa suma kaddu rëcc na ma ba pare du ma mën a dellu gannaaw waaye su yàlla jeexalul suma wërsëg ci sa nguur dinaa la liggéeyal dinaa la wëññeeku li pour liggéeyal la waaye du ma mën a dellu gannaaw ci la set up a private practice in 1980 te ñëpp xam nañ ne poli place bi moom utu ko doomi Gambia yay ñoo daje óolu ko tànn ko def ko njiit te balaa ñoo ñëw ci moom ci kër yu bari lañ dem koo dem time boobu ñëpp ngi ragal seen kilifa duñ nangu parce que ñu ngi ragal ne dara dina jot seen doom waaye ba ñëwee ci moom mu ne leen baalal ma dama am famille am ay mbokk ma dem waxtaan ak ñoom mu dem waxtaan ak mbokk eh, kilif kilifaam yi waxtaan na ñun ñii jabaram ñu won ko ne ko ali comme que pour réew mi la te pour jaamale ele pour suñ seeti lu metti metti ñun tam ñu ngi ci saganaaw te dinañ la jàppale parce que ba ma yàlla boolee moom ba lu ma mus di mbébét daf maa jàppale ba ma gis ne suma ah, mébét boobu sotti na man suma honesté ak yéen musuma bëgg affaire di politique waaye doo àndaa nit loo mébét mu jàppale la ba loolu sotti ba sam eega nga ne yaa jox gannaaw ci laa ko wan ne ko musuma waaye maa ngi ci sa gannaaw tey maa ngi ci sa gannaaw ëllëg maa suma raka sali daabu dinañ la jàppale ba fa ñu fa fa yëfi di ema mhm. te li ma gën ne neex ci moom bi moo dugg ci politique bi daf ñu teg ñu njabootam gi woon ñu ne mu ngi dugga ci politique lu métti laa dugg dina ci dégg saaga ndey dina ci dégg lu nekk waaye dafa bëgg ñu understand ne in politics there is no permanent friend and no permanent enemy sa noot mun naa wëñeeku nekk sa sa sa sa xarit sa xarit wëñeeku nekk sa noon am na ñoo xam ne taxawu na leen fii taxawu eh, génne leen ci kaso bi am na ñoo xam ne sax mbokk lañ ci man keroog bañ jaaxle nekk ci kaso bi leetar lañ bi di wan Ousseyn ne ko gannaaw yow gannaaw yàlla yow lañ yaakaar nga génne ñu fii waaye borom gi Ousseynou génne na ko kaso amul lu ñaaw lu moo teg Ousseynou waaye Ousseynou musu tont te maa ngi ñaan suñ pati supporter nañ mel ni suñ pati liida ku ko saaga ndeysaan nañ ko ignore nañ talk about policies nañ talk about suñ pati manifeste lu ñoo defal jigéen ñi lu ñoo defal béykat yi ba nga xam ne su nawet bi jotee balaa nawet bee jot dinañ jot seen jur yi jot seen tos yi waxtu biñ ko war a jot boo kaa ah, nit different party taxul ñu nekk noonu ñun ñëpp dañoo ut dëkk bi xëy na niñ ko doxalee moo utee ñu bàyyi saagante bi bàyyi ŋaañante bi te xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ma bëgg laa laajte lenn lu tuuti rek moo nekk yéen naka ngeen dee dundee seen jëkkër ngeen toog ñeneen yi jël ay mees def ko si boppam dugal nataal yu du jeex si euh, social media bi yow noo dee dundee loolu noonu nga nekk jabar nga gis sa jëkkër nu mu discipliné euh, nu mu di sentee nga gis yu mel noonu noo dee dundee yooyu. comme li ma la wax rek ñun daf ñu prépare soo ñu ngi ñu ngi doon séntu loolu yëpp. soo nekkul lu ñu beeta nekkul lu ñu naxari because it's all part of politics. it's all part of politics kon nag comment takate nga war a nekk politicien ñemel de. ñemeel ah su ko defee rek dañoo def nii ñu waxtaan ak ki nga xam ne nag mooy euh, sister honorable euh, na nga def moom nag foo foo xam ne gis nga fa honorable rek nga gis ko borom san sanse bu rafet bi na nga def. Euh, maa ngi tur bi. maa ngi tudd Seera Daabo. waaw ñu bëgg a xam rek parce que dégg ñu bari rawatina nag si politique bi ñuy xas ki nga xam ne mooy honorable Ousainou Daabo di ne waa Dóobo maanaam seen waa dëkk bugguñ ko loolu am na ndax amut. aw ma da ding ma baalal ma laaka soose tu problème nañ dem yow tontu ma soose ñun mooy ne ah, o kumol ka fo ko ah, usenu wuludu la min keta do woti ma lafa mu kuma ken sawlati politique kumola woti usenu do bo kon hani mo kilin nen man sika ka fo mi yalo ka ma lafa usenu la do bo be do bo be famu badin kilin nati fan bada be kilin ni do bo taja ka futu jan do futu taja ta wulu jan a ɓe kilen so motije mi ya kon motije mi ma support mukkuma ken sen foltani politique ko modoro no wote ha mu jaaxal ñu lool nga juboo ak honorable Ousseynou Dabo ba nga xam ne si bési euh, seen euh, congrès bi ñu gis la nga nekk si kanam euh, jàppalante ak ñaari soxna yi ñu bëgg xam rek seen papa lan la daan wax si Ousseynou Dabo ku mu leer tey dañ fi ñëw rek ku askan bi parce que laame-laame yi bari na politique baa ngi yàq lu bari ñu defar ko hmm. ah, fama di nte malon uh, birabe bana to mon be do yare ne ma remember back ha bari kam min fonye uh, mba manyol kam min fonye anate fauna ka kacha baka usenu nadi atale nkanyi ne ka kuma jamala aka kuma jamaa fonye la kuoto a da dole ayi kulule ayi prepare ale ate alquran wala karan nasato alquran karan wala kakije bara diŋol be dundi school le mu be tata school le dimusu dinka be le karanta ntel moo dantan ne manke graduate je to mal be mu graduate ñol le docteur phd ñol le masters ñol ni ko wol be mo be bul dimusu dinke ha mo dantan ron tele manke bantil mu fara manke graduate all high school fonko graduate ñol le ha uh, um, fama uh, usenu ha usenu ma adinkende baale fayɓe safa amani mola jikitala baake bake bake bake fayla forota a jikitala ay mo korɗa bela kotowabulu ntel atel mum tel famate useno nda noon tel ntel ɓe school wa nte ɓe school watoma amiteji atele ka ntel na school fees jo atele ka ntel fete pata salo sita anene montoro sañi mañinala montoro ñing adaka tawne ni nga yele teng nkata ita nka yele nka wiɓe nga sañe nga taw Ah, a amite school mo ma soto na man kente ni na sister ka fay mariama da bate ba america and i provision no sa mole mbuka duni no mole kana duni mole from the school gate to the, our dormitories aka provision na ten ka korala fon ka molso mm-hmm. ha we are very proud of him uniform mo boka manki fem fem boka manki nte na futuo city tajan tati years ago nte la futuo city tajan ko kota tel folo la futuo city tajan amanta jamata city tajan nte tijam fang keuna una ta nyinine ayin kumandi in kamal amal bira ayin kumandi ayin yinin ka konye ko ah bir ka man kol na ta jande ko ila fite man diam ako ni nyi ka kacha ala muso bir no ka kacha ko ah ni aje na ta janka na ya fole <laughs> nde saita dro ye futuo sitin ko man ti jam fango to mbe fokko ina postin slante muti chalete sai mu he tichate ka ba fita lo eh ma eko ko e eh, mbarin ki ole nyiti bari futuo sitin ko everything went well i still have the cassette with me cassette o nyimbe mbul fo be ka to futu sito to jang Ah. kon nag ku ay mbokk a gërëm looya loolu neex na ba noppi ah, su ko defee rek nag ñu ñëw jàkkaarloo ah, ki nga xam ne nag ah, waaw déedéet dinañ dem si gars sa sax su ko defee si saawa mooy def loolu rek dem waxtaan ak suñu yaay yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk waaye laata ñuy def lolu rek bu len faté né supersonic money transfer ah, ñoo jaar si programme bi di wax képp ko xamné UDP nga képp ko xamné da nga bëgg lu leer jaar len si supersonic man oluwuma kenn lu supersonic money transfer ñoo pa si bés bi bi fandé fandema duñ len faté ah, duñ si faté nak Ajis Beauty Palo mi nga xamné mo ñu make up honorable mu ne daf la bëgga ba jeex tak Ajis Beauty Palo lolu la wax mu jaaké ma ko ku wax la ko tamit ah, duñ si faté nak Ah, ñi nga xam ne nag ah, ñoo nekk Nabil Couture ki nga xam ne nag moo nekk Habib Couture ak ki nga xam ne nag moo nekk Nasiru Couture ñoom ñoo jàpp si bés bi ak nag ah, bin bi bisu baza mu nga xam ne moom moo jaar si xale yi seeni kanam wax naa leen télé yi bari neen si dëkk bi waaye du ñu nduroo man damay fly te ku para fly ak man nag war a dem uti ji makka xanaa uti ne am gàncax waaye mango ba laa neex day waaw comme Fatou Sama nu mu ko waxee rek dañuy ñëw ni rek waxtaan ak suñu ñaari yaay yu jong ma yi rafet bi bugg dee kon boog nii lay doore métti nii xaaral kii moo nekk ci ndeyjoor bi rek ba ma defee ne wax na yëpp waaw man waaye man bëgg nga wax ma tuuti rek si suñ papa looya Ousseynou Daawa parce que ah, dañ ne lu baax du doy bu ko defee nga baaxee ñu tur bi wax ñu tuuti si kii di ah, suñ papa looya Ousseynou Daawa mm, suma mag la suma mag la suma baay la mm, moom lu nekk munyu ko kama nikakonta isaja e gana dia gana sonoya yo yo be kontonna yo allah alna allah naja diyata moli e baki alma ma be la jarla yo misada wontel koto malon fa malon famaɓe banna won montel mu dumandinnete man fama lon ñajen sita fo ñin temboto bi ala naate lon antel kembe duwa lay doron allah tafen na duniya kon alma alaya be sonoya alnin kilaba horomoto alnin bisungkar sunkar sunkar salo horomoto ah, ndoma diyamu tan te ah, ah, te beteyatal a kon mu ko waxee mu ne rakk ji wax na kon mu amatul len lu mu wax bu ko mo tan ak sama yaaji bari ka red ni black lomba ya, bari yaay merol meerol yaa di meerol fa koy paree noonu mm, assalamualeykum en jetto mu ñaalalti kontoŋo daabo mm, useni mum Eh, moolen mi yaalo ngala tentama baake ngala tentata famili bema wato wati abennoma allah yo ala manna doya juuɓe kana ala moto mala fo birikama kanan juuɓe je han wo damman kañanta eyi eh, mbe duwala sima e ala e anin cata kendeya mbe duwala e sutrola mbe duwala e tankola mbe duwala e kayrola mbe duwala e hadamadiŋol alama ala kayaye alla e allah kiila hormota ka meñinin aɓe ala bulu alama ala ya diyala alama ala ye duniya molu kaya alama ye kela e banque mum koti a kola almakila e kayroti a be ga duwata e sima ala ni jata kendeya wolema beeti ni ala ya sima yanda jato kende ata wallahi ni ala sonta inchallahu ñim banko ala ba dila ala le ala ma ala yo ke ala nin be wuluña horomoto ala nin dobo ke mo horomoto ya rabbi mari mansaba mansaka man sakallanke o ala ma ala ya kanda ala ma suturala ala ma tankala ala ma ala ya hijabu allah subhanahu wa taala ala man saya horomoto mbo dañin sunkaro men kono a horomo na bariko mo ñimmali men duwata jeeyi moo ken dol mene alqur'an o karanje wo be horomo ala ma ala yakanda ala ni alkaba horomo to makka horomo madina horomo allah allah subhanahu wa taala la man saya horomo to ala ma la ilaha illallah mo horomo to gambia banko ala ma sumayala ala ma ala en tanka fitinol fitinoɓe duniya dawda ala ma ala e jisuma bo jika nanim fala duwa ñimma horomo to nasuti o horomo alahuma salo horomo sallim karim mbaraten uh, alhamdulillah ni nata jang ni ma usenta jang hafa siye bara ngewo batu uh, nata lungo lungo nena ma nyaku mata jang ala be londi ngala ala ma ala ya ala ma ala ya sa sa fisa ya alla ki ala man solo jata kende ala ki la hormoto uh, ah, baraka way fatu da uh ma dañ ne buur buy dem ah, xeex sa dafa am géwél bu koy topp bu ko defee di ko bàkkal maamam ah, moo tax nii rek laay def bàyyi géwél bi moom mu tagg ko tuuti rek ah, asalaamaaleykum suma mbokki askan yi maa ngi leen naa nuyu tey bés ndiki tey jàkkaarloo yéen bég naa trop kontaan naa torop waaw si bunta bi ngeen ma fekka maa ngi toog waaye am naa sa caméraman yi gis nañ biñ dooree rek ma topp commencé di yëngatu loolu yëpp mbégte bii la yan nañ ko fekkee déwén ci bakka salaatul fatiha man du ma guddal suma wax ji bu baax man ne la rek laa am solo lu waxaw ne loolu laa bëgg a wax Gambian si neñ baro bàyyi suñu xel man duma ma geweli soose man geweli mbayeen laa man mbayeen laa waaye nag comme sa wax ji nga ne wax ji bari na si dëkk bi mhm. léegi ngay wax léeg-léeg léeg ngay wax naka la mhm. ñii di wax ne Ousseynou eh, UDP parti soose la ñii di wax ne soose yi rek ñoo moom UDP su fekkee ne soose yi rek ñoo moom UDP kon man Ngabeli Mbayeen la ma dem ci eh, eh, parti Olof ku nekk sa askan waaye loolu melutoon noonu ki nga kii toog nii depuis 1996 lépp loo xam ne xew na si koom man fekkee naa ko man mun naa wax ne kii daf ma fekk UDP Adja May Ndour li mu wax dëgg la Ousseynou utul parti bi waxul kenn ne daf ma def leen ma njiiti parti Ousseynou Amérique la nekkoon boobu dëkk bi dugal na si tolof tolof ñëpp a ngi jaaxal ku nekk dem nañ fa ay jànga yu mag yoo xam ne si biir réew mi lifin nañ leen mënu ñoo jot kenn moo ñoo fompal suñu rongoñ yi waaye li ma lay naa ñaanal suma mbokki olof yi soo man di ko ko fa mel ne ko jalite yaato jalite yaato jalite yaato jalite déedéet war ngaa féetoo fen de géwél war ngaa féetoo fen soo féetewut fen billahi yow da ngaa di kalay kalay rek waajaa ngi nii toog daa ba ko kima ni ya kima sagantaranga nani wataranka pro min nanin ka to min na jula jula makam ban nanin jula wasbali Aja ma ndur ke bo ke ki dafane kanit ko hamne su ne ki yalla sahul ko rew mi fi yow mi saɗo fiwa Pasi ce ah, que ki fi nekkoon ñun yëpp xam nañ li yalla xam doyna na ñu wax lolu yëpp ba du feke ne be legi kooku mo fi tok yow do fi jeen jërëjëf wongo man demal bu ko defé ñu bay faat mu ñëw waxtaan ak suñu kilifa bu mag yalla ya yaa nangoo liggéey bay la ya neex na leenam wallahi du ken bañu la bay Ousseynou neex na leenam wa wallahi du ken bañu la ab géwal neex mel yow géwal nii la war a eh, mel ab géwal nan la war a mel eh, ab géwal nan la war a mel UDP ah. UDP eh, parti UDP Seydou Dabo UDP parti UDP Seydou Dabo yow lanu faral dëgg la UDP parti yow lanu faral Dabo UDP dëgg la yow lanu faral Dabo UDP dëgg la yow lanu faral Roya yow ku la bañ waye ko la bañ yenn coronavirus waaw amna solo kon nak baye len bañante bi ñu xamne bañante amul solo mun nañu criticize yes it's true ñu criticize but then at least let it be constructive su ko defé rek mbokk yi yéen a Gambian talent TV wax naa leen ko ci télé yi di nelaw man ma yee yeen bu len nelaw man bëgguma kenn ku boorin ku ma xam wax naa leen dis ya ma janax day bari pax parce que gis na copyright ba ngi bari man nak ah Samba Birane mbéri ma dem mbéri xuja jeey man maay suma géwéli bopp man ah xale bu riis man ñu riis laay seet si politicien si dama bëgg a yéen it ngeen riis ni looyaa Ousseynou Dabo ubbi bunti kër yi bàyyi leen ñu ñuy dugga parce que journaliste bi mooy ñëw di la indi lan la ñu ti di wax doo mun a uyu ñëpp waay fii nga koy mun a uyoo parce que wax bi bari na te élection na ngee jegeñ si ku mun sa morom duma kon nag UDP leen seet si tey bàyyi politicien yi soo meree nag yaa xam way nak tay bàyyi politiciens yi leen seet te nak moy bàyyi gay ku buga a ku bañ sen seen mo len jital salam alaykum wa alaykum salam fayna la. Eh, ma bàyyi la rek nga introduce sa bop nga wa askan mi yow yaay kan. kan? Eh, man may Ousseynou Dabo borom kër aja May Ndour ak aja Sali Dabo. yow honorable waay honorable honoré bu nekk yow da joo da nga da nga da nga da lii naka lañ ko de waxee ah xam nga gars yi ñu ne góor da war a jonge ndeke suñu honoré bu dafa jonge mi na maay borom géeri naka ah. Adja Maye Ndour ak Adji Sali Daawo. lii la nga riis dafa baax ah Pape kontaanu lo ah. Ah, yi nay ay nuba seen jabar yi bàyyi leen nuba honorable mi ne moom du nuba ah, su ko defee rek ñu bàyyi la ah, nga nuyu wante askan bi tey juli la ñu laa jaajëfal nag si li nga ñu alaaw ñu ñëw sa kër ñu laa bàyyi rek nga déwanati ak askan bi alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla nga xam ne ci mbaaxaayam mu mee ñu ñu gis bés bi mu jox ñu kàttan ñu or weeri koor bi eh, nim ni mu waree eh, mënoon noo ñoo def ñu feebar duñ mën a or eh, ndax sax mën naa jël suñ bakken parce que am na ku door di or waa jaxalut ko waaye nag ci baaxaayam mu bàyyi ñu fi loolu ñu ngi ko ci sant bu baax di ñaani yàlla ne mu ci baaxaayam muy may ñu ñu fekke beneen weeru ñu oor ko ni mu waree eh, di leen wax yéen Gambian Talents déwénat leen di leen ñaanal yàlla nag yàlla yàggal leen parce que li ngeen a def nii eh, mooy di jëflanteeg nit yi pour xam lan moo nekk seen biir kër yi Eh, loo xam ne ordinarily xëy na eh, nit yi duñ ko xam eh, dégg ngeen suma rakay liñ fi wax Keba Kubali ak ñeneen ñi liñ fi wa te lii nag li tey bëgg ma wax dara ci yi yëfi politique xanaa lenn rek laa bëgg a wéral mhm, moy li may wax about yefi tribalism sera dabo mm-hmm. all of lañ ko tuddee mam sera Mbuub ci day benen beneen sama koku ji kon yadi kon jay lañ ko tuddee magi perin njay mm-hmm. man mi mangi ngi dom Adam Trin olof la suma mag mu ngi tuddee doom ñanga njaay ñoo ñëpp olof lañ ñun ci olof yi lañ gën a dugga parce que ñu ngi ko gisoon ci suñ baay suñ baay nag euh, Seera Mbuub jigéenam la woon euh, Adam Trini nekkoon jigéenam euh, Seera Mbuub doomam yi ñoom Ayda Sekka nekk suma jigéen doomam yi ndem si yàlla sol amen amen sol Euh, doomam ay Kombe Ndiaye ñooy nekk suma jarbaat so ci ñun yëfi xeet amut fi ñun liñ xam ne xeet yëpp benn mbokk lañu te loolu lañ war a saxal nag ci réew mi euh, bugga edda suma njobooti te suma nee suma njobooti mooy suma njobooti politique ne ñu ngi ci waxtu xëccoo in ñu ngee dem ñu ngee daw pour gis kuy jël force waaye nag loolu dama bugga ñu def ko sans fitna ñun li ñu war moo ñu edam jobooti ne seetaane suñu buggee toppa sax ñu daw ko buñ encourage seetaani fenn parce que réew mi su tàkkee ñun ñooy sofa suñ économie bi dafa gën a sofa social services nga xam ne dañ ko war a provide duñ am duñ am chance bi pour def ko ko xëy na ñu ngi xalaat ñi nga xam ne ñu ngi ci fitna bi ñu ngi ñoom ñoom ñoom ñu ngi xalaat man naka laay munee suma moroom ngay def ay pexe yoo xam ne dafa yóbbu réew mi ci gannaaw so man li ma wax daal mooy li wax daal mooy muy politicien muy njiiti nga xam ne njiiti parti la mooy xam ne imam la ndax alkali la kilifay daal nay idda eh, suñ eh, suñ njaboot yi ne Gambia mi na gis ne benn fitna amut fii. honorable euh, su ko defee rek dinañ dugg si li nga xam ne mooy December elections si mu ngi war a ñëw kenn du toog ak politicien te doo wax ak moom si politique euh, ma bëgg a xam rek xaw pipiat la UDP euh, nekk ko 2021 election. Eh, looloo tax ma ne ci season bi nekk nii korite season korite bi ñu ñaanalante ñu ñu edda suñu bopp. so eh, yéen naka ngeen préparé so suñu state of preparation ah. bëgguma ma ma def loo ci ci wax loolu ci bëgguma ma wax loo ci time korte parce que loolu su ma ko lifine wante may xaw a fàtte korte bi ah. concentrate on politics te bëgga na te bëgga naa ne daal korte ah. bi nga xam ne daf ñoo def benn ñu ci loolu yaa loolu nag dinañ si ñëw boobu leen dee tëjee waaye rek xam nga soo toogee politicien foog nga laajte ko parce que gars yi UDP maa ngi gis gaa yaa ngi toj YouTube di toj Facebook gars yaa ngi kontaan soo xam naa du ñàkk ñu bëgg a xam préparation si. Eh, waa gis nga nag li nga gis noon ci Facebook bi ak YouTube loolu moo laa woon suñ préparation bi mooy eh, ñu ngi jéem lu nekk nag xebuñ kenn xebuñ benn parti. ñun UDP liñ jàpp mooy ne patis yëpp ñëpp ñoo ñëpp ñoo ñu raw su fekkee ñu ngi daw ñoom ñoo ñu raw soo ñu tànnee dañ leen a daax ah, jot leen ba raw leen. Mm-hmm. so so ñun de loolu lañ defee duñ toog ne ñun ñooy win élection bi déedéet mm-hmm. ñun de naa gën a liggéey ndax ah, ñeneen nga xam ne ñu ne duñ am win. duñ ne duñ win ñoo ñu am disappointment mm-hmm. waaye nag euh, duñ duñ jël duñ duñ duñ complacent mm-hmm. take things for granted ñun daal liñ gis naa la mooy parti bi nga xam ne moo mujjee register mm-hmm. two weeks ago ne moo ñu gën a am nit to ñun nag dañoo intensify suñ campagne bi gën a am moo nit Eh, UDP nga nekk koo xam ne ñu bari den la si bugga loo yow daa Darboe dama bugg a xam ndax xale yi den la ragal parce que jànga nga yes ba tam sa parti am nga ndaw yoo xam ne den jànga ñi yaa ngi am PhD ñi yaa ngi am eh, doctorate ñi yaa ngi am leneen ak leneen ak lene xanaa xale yi dang leen dee kabax saay rek na leen ne parti bi suma bas la xale nag ragaluñ ma xale yi dañ ma bugga dañ ma bugga dañ ma respect xale yi soo gisee dee eh, ma teg ci place Nelson Mandela ne dama leen nang teete ngum ba ñu àgga fu ñu war àgga ma soga eh, retire toog nag di leen edda di leen xool fu mu bugg a juum ma ne la ah ah UDP du lii de tii lañ war a def soo xale yi nekk ci UDP xale ñoo dañ ma bugga kenn ragalut ma boo ma fekkee ñoom da ngaa ma ma ma suma seeti la mm-hmm. waaw mm-hmm. kenn ragalut ma te yàlla maa ngi ñaan yàlla yàlla bu ma kenn ragal mm-hmm. ci biir UDP li ma bugg a daal ci biir UDP daal ku fa nekk ñu respect ma ñu bugg ma waaye bugg ma ñu ragal ma parce que su fekkee buñ ma suñ ma ragalee rek bon dañoo ut feneen foo xam ne dégg nga dañ fa feel comfortable duñ fa ragal dara waaw bu bu amee njiit njiit san sa mbooloo su fekkee rek buñ dooree rek de rek nga xam ne yow amee nga xam ne dinañ door di dinañ door di la bàyyi. waaw ñu gis ne tamit euh, julli su jotee da ngay gis ñi ci dañ dee koolante di baaluwante aha euh, comme que yow nag euh, leader nga si biir Gambia ma bëggoon a laajte rek ndax kool nga ki nga xam ne mooy président Barrow mbete président Barrow kool la baaluwante yow aha parce du yaaxa dara. Uh, actually kóoluma eh, ko parce que aw ma nombaam eh, aw ma nombaam. lu waral loolu amoon nga ko. wa wa wa amoon naa ko waaye nag xam nga nomba président daf di change rek. Hmm. daf di change toujours so aw ma aw ma nombaam waaye nag yaakaar naa ne gis ma ñu iya message bi bi ma ñëwee Gambia yëpp ne maa ngi maa ngi good Eid pour ñoom yëpp. Gambien bu nekk ah, yaakaar naa ne moom itam bokk mhm. ci nit yo nga xam ne nuyu na leen kon dama believe dama ne my fellow Gambians ba pare ni ko indee ma ne ko ma ne leen blessed it all of us mhm. demande leen mhm. almam maa bi jaar bi ñëw loolu pour ñëpp la yëpp pour li nga loolu dama loolu loolu moo doon gën a rafet téléphone your excellency Mr President eh, Ibedi kontanate dimbayal ɓe ɗi mbe mhm. eh, konton na salola mhm. waaw loolu moo loolu loolu moo doon lu moo doon gën a rafet moom tam deful loolu comme que yow yaay baayam wa li ma wax mooy mhm. eh, xam nga doom xam nga baay moo dee jaanal doom baay moo dee ñaanal doom so eh, dina doon gën a rafet su fekkee amoon na téléphone doom bam as baayam ma kool ko as ma doom ne ma ngi ñaanal waaw so yow gëm nga ne 2021 élection bi UDP dina win Euh, parce que fu mu nekk nii langa bi riis na euh, ku xam UDP xam ne UDP rëy na waaye fu mu nekk nii am na euh, beneen parti bi nga xam ne mooy NPP ñu bari ñoo xam ne ñu ngi nekkoon si sa parti dem fa yéen yéen a ngi a bil seen bopp ñu bari ñu ngi gis tam ñu ngi ñëw si seen parti foog nga ne UDP dinañ win election bi. well loolu laa la wax ma ne la ñun duñ foog duñ wax ne ñun foog na ñun ñoo dañoo win election ma wax mooy ne parti bi nga xam ne moom lañ mu jël register barka démba ñoo ñu ëpp nit. donc ñun dañoo campagne raw parti boobu raw ñeneen parti yi raw NPP bi ngaw wax mhm. waaye duñ jël for granted ne dañoo win mhm. ñu nag ñu ngi liggéey li mu war mhm. lu ñu war daal ñu ngee def loolu soo nekkee président de looy def 2021 sala su ma nekkee président de Gambia dama nekk at the disposal of the Gambian people di Gambian people li tax ñu ñu jox ma mandat loolu la ci loolu lay taxaw manda bi ma jox parce que ma damay dig Gambians ne soo leen ma tànnee def ma président lii ak lii leen defan buñ ma tànnee nag def jox ma place bi nag man li ma war mooy ma fulfill suma promise to the Gambian people so dina Gambian people war nañoo xam ne dinañ am président boo xam ne suñ ma tànnee dinañ am président boo xam ne du renegade ci promise am yi lim di Gambians yi dina ko def mm-hmm. and in fact dina make sure ne eh, cost of living ak dund bi in the eh, in the first three years ci suñu administration bi dinañ door di gis something and that cost mm. of living I mean eh, skyrocketing prices yi maalo ak yooyu dinañ ci dinañ ci gis dara la ah, ñeneen ñu ne UDP parti defante la maanaam defante rek la ñuy def looy tontu ñi nga xam ne ñoo ne UDP parti defante la seen parti leader sax ñu koy déggal ñu ne honorable Ousainou Darboe defante rek lay def. Ah, man de defante de góoma góoma dinaa de defante de waaye na ah, ni ma dee waxee la ba pare nga xam ne suma liggéey suma liggéey lawyer defend damay defend ci biir code bi. suma op suma opponent lawyer bi dama ko dama ko attack attack laa examine cross examine ha in very hard way xëy na loolu laa miin waaye nag du defante ne eh, boo xam ne xuloo la defante boo xam ne di wax wax ay wax ñu ñaw kenn musta dégga man ma wax wax ñu ñaaw kenn musta dégga ma even wax loo xam ne eh, nit waru koo war réer koo jëmal ci ci ci ci morom jilitam ak ci morom nitam tam mus ma mus koo def li nga yaa ngi laaj aja ne eh, li fi ne <laughs> ma gisee ci wiig bi yéen su ma gisee loolu dama dee wax su ma gisee dama dee wax eh ndekete su ma nekkoon jigéen naa doon nekk jigéen bu rafet <laughs> so this is I find them funny waaye façon yooyu nu ko di bugg a kenn def ko suma suma opponent mm-hmm. because dañ leen war a respect political leaders leen war a respect seen respect bu mut war ñoo def dara loo xam ne dañ leen a karkacoo mun na ñoo attaque la jamaay wax ma attaque seen politicien waaye seen person waruñu leen a attaque waruñu leen a karkacoo waaye man nak man I enjoy it dama karkacoo ni oh loolu dama ko dama ko dee enjoy mm. no no oh ki this is what he thinks about me either and also it shows the eh, depth of mom xelam parce que nit nit bu nekk li nga def ak li nga wax dafay wone sa xel bi ni toll mhm. so so it doesn't bother me at all du ma dee bother ñu gis ne président Jammeh nekkatu fi ah, tey suñ la waxee comme for instance nga waroon a nekk président 2021 comme 2021 di nga bàyyi Yaya Jammeh mu ñëwaat si dëkk bi well xam nga loolu hypothetical question la man loo xam ne is a real thing like loo xam ne is on right now factual matter loolu boo ma ko waxee boo ma ko laajee ma tontu ci waaye apatiteka lefe loolu you know dafa unnecessary unnecessary debate unnecessary controversy jarut will you advise Barrow ko mu bàyyi ko mu ñëwaat si dëkk bi non li ma wax mooy eh, decide na ne na ko daf ko mu laaj ma advice den naa ko wax waaye this this would still be a hypothetical matter mm-hmm. loo xam ne su fekkee lii su fekkee lii mm-hmm. élection mu ngi ñëw ah lii moo am élection bi mu ngi ñëw xam naa ne ah, si sa boppa ah, party parti bëgg join leen def coalition di nango. well mbooloo mooy doole mboole mooy doole ñun duñ wax kenn du bokk ak yow after all ñun ñëpp Gambians lañu ñu ñëpp ñu am mébét pour réew mi su fekkee yow li nga mébétal pour réew mi man tam ba réew mi leneen mu bokk suñ mébét boobu pour euh, ñu am ko dafay gën a yomba soo soo ñun duñ wax ne kenn du duñ boot duñ bokk ak yow. looy tontu ñi nga xam ne ñoo ne yow yaa yàq dëkk bi yaa tax Gambia demut. well <coughs> ñi nga xam ne ñoo man maa tax Gambia nga xam ne ñoo yore Gambia ñoo na sax <laughs> nee na delluwaati foofu nga ne naka man <laughs> su man man kenn rek maa tax réew mi demul réew mi dafa yow ñi nga xam ne ñoo yore réew mi ñoo na sax ñoom na nañoo mën a def <laughs> naka la gars yi na ah, waaye naka la réew mi yaayee ñoom war nañoo gis ne réew mi yàqut mm-hmm. ne benn Ousainou Darboe moom donc ñoo yaa réew mi ñun ñu nekk fii ñu amee nguur gi am everything <laughs> man maa yaakaar réew mi ah bon noonu nañ war a gis ah, seetaat <laughs> nañ faa nekk de <laughs> kon nag bàyyi leen di wax ne moo yàq réew mi mu ne kon nag yéen a na sax ah kon nag bu leen na a ah defaraat leen dëkk bi defaraat toogaay bi honorable daa ba tey ñu seet si la ah, di la baalu axa si ah, julli bu nekk nii di la wax ne kaf ree dafa neex ñu gis fi nag ñëpp ñu tànn la ne dañ laa seet si naka nga fiil nga nekk di first person ku ñëw seet si loolu daal I feel very honored kontaan naa ci lool and uh, awma uh, woot boo xam ne mun naa ko wax pour wone sama kontaante waaye xanaa di leen baak yàlla kontaan naa lool uh, di ñaan yàlla déwén ñu fekkee ko ci jàmm seen médium bi seen média bi yàlla yaatal ko ngeen gën a am Uh, more, uh, in fact, bet, bet, better environment, better equipment for the seen liggéey bi the naa lool te introduction bi ne Supersonic More sponsor seen programme bi uh, congr ma ngi coono ñu ko congratulate Njundu Dramé mm-hmm. good friend man a good Gambian eh, lii lañ séntu ci Gambian si hamne. xam ne nekk position to encourage the media ci seen undertaking si ñu ngi ko gërëm bu baax ak ñeneen yi nga xam ne ñoo leen taxaw. Eh, jërëjëf kon nag ana suñu salibo. loolu la xaaral ma dem wisi leen seen salbo nag loolu xam naa ne foo ngeen am salbo de. Eh? waaw yéen a ko gis. ma koo def bëgg ma ko def li li li li mag yi dee def fële no doo neen ana salbo mm. ñu ne leen mbedduwalee du ma def loolu <laughs> wuyal leen ma looya borom UDP xiif bi mu dugg si ndànk ndànk ñoo toog a ah, la pare ñi ñaata a ah, sebula ini mole ñon konto ok bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamina e mbal tentula mbaal jayila awa pour kana jambi kana la bankola président kuto konton awa atel fana manta bentale mandinkolu koy ko manta bengale fisata bafutu woti e allah na jambi ka folo atela woketa moolu ye e alif tel nin tel be kayra balete katu nin ko nga history ta falsi jamfa bari kali tar jamfa nan kali do fali kaali karandi e abetata bage katu duniya mu history leti londi o londi abe mu history leti menketa menketa menketa menketa ok banko molu ne aje gambia be tambita kabulan nyono makanana kana useni tarinyim banko ka pour ka banko bondi mara okono kɔnɔ dalilo le folo folo fɔlɔ fɔlɔ asunta fuseni ye min karan a bɛ k'a fanga ye domandin ya de marolum min be dewundi ni aja ay gambia bondi marandi ala ya daka ma bare ala londo abulata wala noma kadu looya o kara molle ma mele tora ko soto mele man tora ko soto mele ku nakar ling soto ni yaje nga banko be ya nde amadu folo manalo ka faalo bi jambe nda amal dron nga gambia bele yayi mbe ya jammila maro kono wata nga gambia bele yayi nde fangode nga gambia be yayi mammo soto men si lono pour kaka kata kalo gambia ye ka gambia bondi bulo kono wonu gambia banko bele be sunari nkara sata ndata usmaila sise ya asilata abe gptc mbota je ndata mala min sonko ya abe akso etle do abe balurinde asilata silata mbotejen data esay lamini ya a silata banko be ay wolu wolu wolu wolu useni mantari nyim banko kan abe ameriki afama a fama wala ente bayindi fo e banjul sen daba ko nyeko ko nye banko teta de nimba wuli katu yentel bela soto fenga muta adu moma soto banko kambe men tambindi la na miti folo nyim banko kanye ngake siria sanya ya janna nyim pipeline ja na miti ukijele pour k'a kata ka mo soto men be kafula banko moolu ma pour ka banko bonni marandi ka hañi kalo pour ka usen e ka kalo ka yaya kelene ñim banko kan mira kumolo bar ku kole mbalam wolumuti katu pipi pile man sakunda aya bele te ncp banko politique par yo fembe ñim banko ka aya be janja mo man hañi koto ka pour na man usen let ntata kan nka tiata aka fana mbita futala alfalima melbe suwo kono awa aniye kacca a kotolu a fandiŋolu a fañulu aniye kacca a tata nata a jaabi ñin la wolo a ben jaabi la lumme femi pitas pese njay jobu kante ngansu sundiŋ mbe mba tammadu amadu kora nde le atari tari banjul a yin jaabi a ko banko mole ko ala sawo annabi sawo saya bije balu bije melo laali yele pour que gambia bondi mekuma kilim fole sumo, salo sada jaamew fɛn fɛn bɛ banko kan min farila yaata fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ala bulu min farila yaata banko ma wolomu kaloo banko ye ni banko man sabati n kontine ta wolu banko man sabati kuwolu be kontine ka kata moo moo kendolu muta keke buwati kata moo kendolu muta keke suŋulti kata moo kendolu muta ke itika ke bula kaburo kono ni ate ma loo woluŋo banko te te kana an sawanun di non se continue bari a ketal ko wato le felenti ba signal kan iko time is one's worst enemy alla janna a jareta bake katu gambia la history ita soto nola bi kabila bota tu independent nola ita soto nola foye usen le la foye usen le ma because ay men ke banko nyin kan bo make adu amaka ate kunkoloye ayake gambia dingule ate li ta wolo ko yaani ah mani manza bi ayelo kanida bake bari minala na kacha do soro bu ko defe bala ñi dem ñu bay ñom pa papa ngeen pleel ñu bongo bi rek after ñu close wa ah, jere jere ci sawo kon nak dañuy laaj ndewenal la ya da jere jere waaw ah, su ko defee nag nga gis suñu yaay ji ah, di awo buuri këram ah, di ki nga xam ne nag mooy xariti jëkkëram mu ngi nii ñu bàyyi ko mu wax ak kontaan nañ torop ci seen ñëw te comme ni ngeen ko waxee romba ngeen fi fu nekk ngeen fi ngeen a njëkkee loolu nekk na kontaante ak mbégte ci ñun lool lu leen jox nag xeeb nañ ko fii juróomi junni ngi ni muy seen salibo ah riis na riis na Bon, bon, il y a des boulons bas, il y a des boulons bas, il y a des boulons bas. bi door na suñ diggante te yal na continuer amiin amiin jërëjëf ma ne ko jërëjëf ah, kon nag ah, jërëjëf ah, looya daabo Dabo ñun tamit kontaan nen salibo bi bari na lool lool lool lool ñëw bi rek dafa neex ñu ñëw nga ubbil ñu kanam ñu ñëw nga waxtaan ak ñun kon nag ñu ngi laa jaajëfal bu la bu baax a baax a baax di merci beaucoup di la ne a jaaraama di la ne jokko njari <laughs> invité kat yi ma déggoo saraxule sa wax ko kon nag euh, bongo nen dem nen wëy yo mii la ñoo wëy wëyal leen ma suñu suñu suñu nit gi man ni man sa mooy buuri a soose fii si biir Gambia buuri jërëjëf ma ne ko jërëjëf ah bii nag mooy suñu laas ñu ngi close a ah, di leen wat jërëjëf a ah, ñëw seen kër neex nañu lool lool lool waaye bii UDP lañ ko wéyal képp koo xam ne faani UDP UDP jaral la jógal nga ñëw may ñu xaalis UDP ko moom diaspora Gambia ak a nen dem ak UDP ko jàngi yow yaa ko jàngi woon bokk ak ñoomi feem xolal nday dunu benn ta baañi yamuñ ba xolal e waxuñu ki juddoo ci ki defar dëkk bi la ñu wax waxuñu ay wax bari ki defar dëkk bi wax dégg nañ wax réew yaa koy téye loolu la yàlla xolal ba ngay sonn ci Gàmbi wu fi woon ni lañuy fonde balla yaa boo taawul sin bi kenn du lekk yow réew mi yaa ko téye loolu la yàlla bëgg jërëjëf indi pap dem waa baax na baax ah, kon nag ah, honorable Sakir amee jaama yéen a ji yàgg noonu ah, jërëjëf bu baax a baax thank you very much for everything ah su ko defee nag mbokk yi a ah, ngi demi ji nag si beneen place toppaleen ñu tey politiciens yi ah, musiciens yi eh, célébrités yi yëpp la ñoo seeti high list leen am suñ jógee fii dinañ dem seeti ji am ah, honorable Faba Kadi Tombong Jatta bu APRC suñ fa jógee nag dinañ seeti ji ma PPP gars yi seeni jigéen jooju noonu di Touma Ndiaye suñ fa jógee dinañ seeti ji ki nga xam ne mooy Fatou Camara di faatu Show suñ fa jógee nag si a bul ma bàyyi noonu ba te may mun a bul ma bàyyi noonu ah seti seeti ji nak ki nga xamne nak moy Lamine Lamine Lamine Bojang dinen ko seeti ah duñ ci faté tamit ah, ki nga xamne nak nag ah, wax diga neex yalla momit benen jambar la ci bir jàmbaar yi ah, Moussa Yali ba ci li tam dinen ko seeti way kër bi nak neex na ba pare li len bu na politicien yi ubbeeku ñi nga xamne nak ñoy media bi xamne ñun ñëwun ku def dara lu dul waxtaan ka freta télé yi bari neen way télé bi di gambien Talents dunduro man la sama biram andak suma team yow ku len bëgg am si bongo am leen si ay tama xam naa ne waa UDP duñ ñàkk yi dinañ ko soxla. jël leen suñu numéro bi. 2400 680. 2400 680. bu ngeen amee ambiance woo ñu ñun nag ñun nag amaguñu fenn fu ñu ne bu ngeen ñu jëlee charge daal ñu ne ci yéen ñun moom ñoo ngi ni amuñu xaaj ak seen. dama si ron rek nga jëlante si la kon nag jërë ngeen jëf. supersonic money transfer may mun a ñu bàyyi la nga wax ñu suñ advance ama kon ñu jaajëfal leen di la wax ne jërëjëf bu baax a baax dina xam ne ama rootu ndewinal bi su ñëwee ama ñu jàpp si rootu ndewinal bi ñoo tax tey ñu mun a teew fii ama ñi nga xam ne ñoo nekk supersonic money transfer ñoo fi jaar ak ñoo ñuy maam jaaras holiday in ñom tam jàppanen si bés bi ama Habib Couture ñoom tam ama jàppanen si mi nga xam ne ñoo ma daal di solal tey ak kooku di ama ah, Nabis Creation ñoom tamit defar neen ama ah, jàppale li nga xam ne mu nekk timbite ñu leen a jaajëfal bu baax a baax ak kooku di jaabi fandema mi nga xam ne moom tamit ama ah, lu ko tax a jóg mooy pour daal di jàppale doomi aadama ñu ko wax ne jërëjëf ak Nasir Creation mi nga xam ne moom tamit moo daal di jaar si kooku di ama suma jongome yi taxaw kooku di Mariama Sisaaxo mu daal di ko defaral black bi nga xam ne boobu la ko defaral nii ak kooku di Agis Beauty mi nga xam ne moo jaar si kanami Fatou Samba ak a di Mariama Sisaaxo ak kooku di Buse Baza mi nga xam ne tur bi suñ ko waxee rek da nga xam ne moom yaaxa kanam rek lay def mu daal di yaaxa suma kanam comme ma daal di leen jëfal jaajëfal baax a baax may mën a jaajëfal Gambian Talents TV ñu gën a xuus rek gën a dugg si yeneen ay ndaara ñu daal di leen di béggal jërëjëf jërëjëf si saaw nga tàggatoo si soose euh, in one minute rek ñu dem amba ɗumal ala barka bake ko nafale ñame rotunde men nella 2021 wani safa gonat be easy aliyaje na fulo dam wala na loya usinu da wala korrate aliyaje dongo keta jang ka cal keta jang jelo keta isal ko kairo do ne diya tay ko kuwol be a kunta kairo ko no wala ken bake la tan wato wati do si ta fanana do jibe o fanana la rot wala ko rites pen ka ñame na keta do na rotunde wala do kije nal sura tam wala ko no al son contact sinal ya ko na rotunde wala fatama bayla nga waxa gay waaw jërëjëf ah, waxoon naa leen ko nag si advert yi ne boppa yi uppante neen ba pare boppa yi den munante karab kirib kon nag ah, UDP def neen ba mu baax nii leen ko buggee yenn jaama yaaga suñu dëkka honorable ñu lay gis ati ati at di la gis suñu boor ñuy waxtaan ak yow di def ak yow yu baax ak suñu ay yaay ak kilifa yi nga xam ne ñoom leen fi gis jërë ngeen jëf di jaajëfal technical team bi waa YouTube waa Facebook bu leen dem man bugguma ngeen ngeen wóote Europe dafa boorin Gambia ko yor ñëw leen December dafa interesting let's go bye bye bye transfer ñu ngi ci ànd ak yéen ak yónneekaay xaalis bu gën a màgg ci Gambia mën nga jot xaalis fépp fi nga ne bàyyeekoo kaatong ba na te doo ci am benn jafe-jafe waaw mën nga jot xaalis bàyyeekoo ci sa ay mbokka ak am di jàmma nekkat ci UK Europe US Canada Switzerland ak adina wërngal kep ak suñu kay xaliss bu maga bi nga xamne ne dafa wóor gaaw te fi ci bir Gambia Supersonics Money Transfer ñu ci ñetti fuk ak ci bir Afrika ngir jox leen melowaay yu gën ci jottum xaliss bi nga xamne kenn duko lam lamé. saytu leen si Google Play Store wala App Store ngir muna bindu bind si suñ app bi di Supersonics Money Transfer app ndax ngeen muna a si money transfer services yi ay mbégte rek la ak Supersonics taka kodomu taka bonang uk europe usa canada switzerland ani nyimbanku tomal mu meto supersonic le itadulate ana